mbokk yi wax ju gàtt ji waxtaan bi dama koy jagleel mooy suñu mbokk yi nga xamante ni euh, dañoo am nattu moom mooy nekk ci bàkkaar boo xam ne day continuer yàlla nañ ci yàlla musal mooy bàkkaar boo xam boo demee ba dee ba ñu suul la ba léegi bàkkaar bi di la fekk foofu nga nekk subhanallah yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal xam nga bàkkaar boo xam ne yelu nga ko boo deewee mu jeex ñu àtt la ci bàkkaar boobu mais bàkkaar boo xam ne même boo dee day continuer xam nga loolu mooy ban bàkkaar dama lay ciy jox ñaari exemple bari na mais ñaar laa lay jox bi ci njëkk mooy bidaa mooy bidaa ci diine mooy nga sos leen ci diine benn façon jaaminu yàlla boo xam ne saxul ci diine loolu képp ku ko def day am bàkkaar te danga ci am yow mii bàkkaar boo fi jógee beneen bi ci nag bi ci des mu nekk loo xam ne doy mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci musique subhanallah ci fecc woy mooy génne ay musique yu bees macha allah subhanallah instrument yi góor ak jigéen di jaxasoo caaxaan yi boo demee ba dee yow musicien bi fàttalikul baax li ma lay mooy boo demee ba jóge fi képp koo xam ne mu ngi ci sawoy yooyu mu ngi ci fecc yooyu xamal ni bàkkaaru mbugal boobu dina la fekk foofu nga nekk yàlla nañu yàlla yërëm jéggal ñu kon sa baat bu neex jox ko borom subhana taala nga jox ko alquran ndax suba nga mën a nekk fier ci kanam borom bi subhana taala yàlla yërëm la dugal la aljanna waaye ñëpp kontaan ci yow yàlla mere la loolu wóorul te loolu mbugal moo nekk ci kanam yàlla nañ ci yàlla musal